والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وممدنا أبي الفيض مولانا الشيخ أحمد محمد التجاني عن خليفته قطب الإرشاد وغوص العباد مولانا الشيخ إبراهيم ابن الحي عبد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماي نيو بولومو تد في توك شي توري خليفة بيغا خمنا مملا الشيخ محمد المكي تيوال man itam téléphoné na ma ci suba ne ma boo demee yendew tam nga teewal ma joxel ma suma ngànt ndax mag du ne nah, waxtu buggee jóg-jóg waaye amoon eh, naa pour dem te loolu dëgg la nee na ma amoon eh, naa een lool waaye bi ma eewoo ni suma yaram eewoo ci laa xamee du ma mën a dem moo tax boo demee booy wax nga ma kon ñu ngi leen di jotal nuyoom ak ay ñaanam ak ay di leen jotal itam nuyooy Fatimatu Zahra mi nga xam ne moom ngeen ko tuddee muy loo xam ne kontaan loo na ko lool ndax moom su noppee waxut sax boo ñëwee ba waxee ak moom ci nijaayam mu bi gémmiñam te loolu war naa am ndax bis bi ko bàyyi di ngénte ci Kossy xaaji Mouhamad Zeynab fii la jógee kër yoroo dem ko si war fas ba mu demee ne bàyyi dars yi fi yi fi doon jàngale yépp tey maa koy jàngale ndax dama bëggu Zahra mi bu màggee ëllëg bu ko waxee ne ko sa bàyyi ku a jàngale ne ko waaye sa nijaay itam ku a jàngale la ñaar yépp am na kon kooku bu ñu ko tuddee bisi nijaayam mboobu defal nañ ko lu rëy loo xam ne benn teraanga féetewu ko kaw te moom ñu alxaaji Mouhamed Zeynab waxtaan ci moom du jeex mukk comme li ma waxoon daaw jeex géej la goo xam ne amut tefes du jeex mukk waxtu wu nekk rek ay mbaaxam ñu ngi ay waxam ñu ngi yoo xam ne ba léegi nii mën naa jëriñ waxoon naa ñoom bay alaaji ne leen nañ góorgóorlu tashkil benn lëj na boo xam ne danañ dajale waxam yi mool ko nit ñi jëriñoo ko waaye maa ngi ciy dimbali ko fi mu nekk Oustaz Babacar Ba mi ndax téere bi nga tudd sànq muy wax ci tariqa bi Rawdu Shamail moom alaaji woy na ko ci juróom-ñaar téeméeri bayt Seydina biir fay moom ma ko waxoon mu ne ma man am naa xasida bi mu ngi ci suma téere yi xam naa ku wax ak doomam Baye Faye mën naa am nga jot ci boobu ak yii nga gis Fuuta ak yeneen yi gis feneen ku leen boole dana nekk njëriñ lu rëy ci tariqa bi dana nekk njëriñ lu rëy ci diine ji dana nekk njëriñ itam lu rëy ci biir umma bi yépp ndax moom wax jubatu zaman la woon ci lu nekk léegi naa maam Alaaji Abdoulaye daan na wax ne bu ngeen ko gisee wasifa jiwut bu leen ko ci lor bu leen ko ci roy ndax alaaji ci daayiratul fadliya la bokk ñi nga xam ne buñ defee baax na buñ defut baax na yàlla topp leen dara waxtu bu ngeen ko gisee demut wasifa ji itam bu leen ko roy ci loolu maam Alaaji ku diis diina la ku jafe la su demee ba seedee loolu ci nit rek mooy kooku ku yàlla màggal la te loolu seddal na ko loolu wax nañ ne yaayam jox na baayam lu nekk pour am ku mel ni alaaji waaye dafa am suma benn dëkkandoor bu ñuy wax alaaji loo génn na àddina dafa ma daan wax ne ma gis nga bu ñu la joxee sëriñ te joxe sa bopp du la jëriñ dara waaw bu ne bu ñu la joxee na fekk yow itam nga su meeku joxe sa bopp mu ne su boobaa la njëriñ di door am waaye loolu rek mooy dëgg yaayam daf ko joxe ba pare moom tam jox baayam boppam di ko liggéeyal guddi ak bëccëg ci li baayam bëgg li baayam a bëgg muy xam-xam di ko ci liggéeyal guddi ak bëccëg bàyyi wax na imaam xasan na ko mbooleem maxtuutaat yi nga gis yépp ci alaaji la jóge ne ko bay daawut bind daf ko daan imla di ko wax muy bind waaye lépp alaajee ko bind kooku bu ñu demee ba yàlla may ñu ci jamono jii ñu fekkee ko ñun ñëpp di ko defal ziyaara képp ku mu fi fekk rek war ngaa sant yàlla sànq Cheikh Ibrahima wax na ne képp ku fi teew rek yàlla dana faj sa soxla te da fekkee at bis bi déwén xalifaam Cheikh Mouhamadou Bachir dégg ko moom itam ñaanal la yàlla mbooloo mu fi nekk yépp ñaanal yàlla waa kër yoro gërëm leen te loolu la sëriñ Aliou Diouf doon ñaanlu ne nañ leen jotal pour ngeen ñaanal kër yoro ñaanal itam seeti alaaji Modou Zeynab yi nga xam ne boobu ba tey ñoom ak ñoom la ñu ñëw ci dëkk bi pour taxawal bis bi ku ñëw ba egsi fii da nga xam ne mbooloo mi duut na caaxaan moo ko dajale liggéey moo tax lii mën a am liggéey moo tax tànt bi mën a am liggéey moo tax nit ñi mën a toog fii ci jàmm yëguñ sax ne guddi gaa ngi dem seen liggéey la waaye ni ko seen bàyyi waxee yàlla dana leen fay yéen ñépp kenn ku nekk seen yàlla dana ko fay te da ngeen fay itam waa Kër Yoro ñi nga xam ne am nañ taxawaay bu rafet ci mbir mii ñoom ñépp a ko ameel njukkal ndax leetar bii nga mujj jàng ci sa waxtaan noonu rek la doon waxee ak waa kër Yoro di leen jubal waxtu wu nekk rek mu ngi mel ni lettre lettre bi mu koy jàng nii mu ngi mel ni nit ñi toog nii fi nekk nii ñoom lañuy waxat ci seen jikko yi kon kooku ziyaara ko tono rek moo ci nekk defal ko lu baax itam tono rek moo ci nekk yàlla nag booy def lu baax dana la fay ba nga wax ne lii yëpp defuma ko woon su fekkee ne safaan itam nga taxawee dana la fay ba nga wax ne lii yëpp defuma ko dañuy nettali benn nit ñe dafa mas dóor baayam ba daane ko i mu demee ba doon mag doomam bu góor dóor ko ba daane ko di ko watat ba mu ko commencé watat mun na ko emal fii man egg ma fii ak sama baay <laughs> maanaam dooroon naa ko ba mu daan rek waaye watat bi bokk <laughs> watat bi bokk ci woon moo yàlla dañ la fay ba fay la loo xam ne dafa ko woon buy safaan da nga ko feeku buy lu baax itam da nga ko feeku yàlla nañu yàlla xiir ci def lu baax rawatina ci xadaratu sëriñ su màgg si nga xam ne luñ mës a namm rek yàlla def ko te buñ demee ba génn àddina benn bu leen yàlla daan defar rek defal na leen ko fukk seen maqaama ci lay gën a liggéey ci lay gën a am doole ñu jara moytu lañ ñu jara wattu lañ ñu jara xidma lañu itam ci ñaari boor yépp ndax lu ci nekk rek da nga am payam waxtaan wi nga waxtaan ci moom yow itam gërëm nañ ko kontaan nañ ci lépp lu ñu yaakaaroon ci yow def nga ko ba def lu ko waaye barke boobu dana la topp ci sa mbir lépp ndax ku taarixal góor rek dundal nga ko rawatina nag ngay jéem a dundal koo xam ne moom deewul sax far kooku bon boo ko dundalee xiw yi ci nekk yàlla rek moo xam ne mu yàlla yàlla fayanteeg yow yàlla na yàlla yokk ci zaahir ci baatin yàlla na yàlla jokkale say tëbb ci bàyyi te yàlla bu mu dog mukk gërëm kilifa yi fi nekk yëpp Cheikh Mouhamadul Makki ñu ngi koy gërëm wax naa ne ci turam laay jotalee nit ñi nganti sëriñ bi tere mu ñëw di gërëm ci jotaay bi di ko yàlla moom itam yàlla guddal fanam te jox ko li mu bëgg yëpp ci boppam jox ko li mu bugg itam ci njabootam ndax ci xidma bu rëy la nekk ndax waxtu nekk mu ngi dundal yonent bi sallallahu ci siira te man waraxa li rajulin faqad ahya comme ma ko waxee sànq kon kuy dundal yonent bi mooy sa lépp dana dund incha allah lépp itam dana barki te lépp loo soxla itam yàlla dana la ko defal doo sonn ci àddina doo sonn itam ëllëg doo am itam ku sonn ndax xam-xam bi nga taxawee ci li ko joxe waxtu bu nekk ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp Cheikh Mouhamadul Bachir wax na ak ñi nga xam ne dañuy nettali naan bàyyi mu ne te bàyyi dem na lu yàgg ba am fukki at ñu door a juddu wala sax ñaar fukki at xamaluñ bàyyi dara su ma nijaay ma seen bu waxoon na ma ne ma fan yii da nga gis lu kéemtaane lu xew mi dina ma ne loolu mooy lan ma ne ma bàyyi dana kenn ñëw toog ci minbar bi <laughs> ne bàyyi leen ma yéen a may fenal mënat mënatuma koo muñ <laughs> ñi ko xamal dara ak ñi ko xamalu dara ñëpp saalixoon yi taalixoon yi ñëpp jaxasoo nañ waaye am na ñoo xam ne suñu waxee rek nit ñi danañ xam ne ñii bàyyi moo leen ko wax ndax bàyyi woo xam dafa ànd ak leer te itam nga jamonaanteeg moom mu jàngal la yow boo waxee boo xam nit ñi danañ ko xam moo tax nañ jël xibaar yi ci fi ñu ko war a jëlee ci ñu ko jàng wala ñu ko fekke woon wattu ko xaqaqal ko mboolem ay mataalibam ndax mataaliba mi mooy mataalibi bàyyi rek ci jamono bàyyi ba léegi ndax moom taalibe bàyyi la ku bëggu bàyyi la moo tax lépp lu mu bëgg rek ñu bëgg la ko wala yàlla fayanteeg moom képp koo xam ne daal am nga benn yëngatu boo def ci bis bii ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla fayanteeg sëti Cheikh Alxaaji Mouhamad Zeyna bi seen bàyyi gërëm na leen ñaanal la leen ñu ngi feddali ñaan googu waaye ngërmaande gi comme moom xes na ko ba def léegi loolu tàbbi na yàlla na yàlla saxal leen ci loolu te yàlla di leen yokk daa iman lépp lu ngeen bugga a def fii ci dëkk bi ngeen mën koo def ndax loolu rek mooy xiw ñëw fekk sa baay yi nekkoon ci lu baax nga fexe ba loolu dellu gannaaw xanaa dafa yokk yéen a ngi taxaw ci yokk ko yéen a ngi taxaw ci biral ko yéen a ngi taxaw ci li nëbboon ci moom lépp nit ñi xam ko yal na yàlla fayan tegeen duñ tëj nag lu may dañ leen jotal ne Cheikh Abdul Malik wax na ne jaiza bu alquran bi ñu def Medina ci weeru koor wi daawuñ ko tuddee kenn waaye ren ñu ne tuddee nañ ko maam Alaaji Abdoulaye ah, tur wi tàbbi na place am ndax bàyyi waxoon naa laaj Abdoulaye ba muy aji na ko lépp lu ñu nekkee ci yiw rek benn yiw la ci yiw mi boo demee sa maam moomu bul ko fàttee nangu ko ñaanal kon buñ ko tuddee jaayise bi mu nekk kuñ ko njëkk tuddee kon yëf yi tàbbi na place am na yàlla nangul leen te mboolem ñi ci am itam yàlla nekk barke ñeel leen te yàlla ngeen ko yàgg a taxawee lu baax la ñu leen ciy gërëm bu baax a baax. ndax ba ngeen ci taxawee ba léegi yokkute rek lañ gis ci alquran ci Medina ndax tax na xale yi di defar seen alquran yi ngir mën a bokk ci ñi am jaayisa loolu yépp pexe la pour saxal nit ñi ci diine ndax yonent bi nga xam ne moom la yàlla yoon nii te kum bugg nga jub nga jub daan na def kutub ñu neexalee la dara pour nga dëggu ci li nga dugg ba ci jamono Seydina Omar Seydina Omar ne fi mu ne diine ji soxlaatul di neex le ndax fi mu ne diina ji dëgër na waaye nii ngeen di def ci alquran ba tuddee ko maamala abdoulaye ñes lu kawe la maqaama bu kawe la te wax ju kawe la yal na yàlla fayante ngeen kontaan nañ ci te képp kuy sëtam dana ci kontaan yal na yàlla nangul ñu ñun ñëpp bis bii buñ fi tasee déwén yal na fekk ñun ñëpp kenn ku nekk li nga bëgg ci zahir yàlla may na la ko li nga bëgg ci baatin yàlla may na la ko te yàlla dundal ñu dund yu wér yàlla bu mu ñu rey léegi rey baaxut waaw dugg ci biir suuf baaxut comme moom déedéet li dañ koy ñaan rek comme moom lu ko neex mu def yàlla bu mu ñu rey léegi waaw yàlla bu mu ñu rey léegi yàlla ñu bàyyi ñu dund suñu yu baax yi di yokk daa iman bu ñu waxee ne dund nga dund yi yonent bi baax na lool waaye yonent bi yonent bi la yow boo dundee juróom benn fukki at ak ñett itam taxul nga nekk yonent bi yàgg fi nag say yu baax yi di yokk dara gënu ko Sidi àll dama koo déggoon mu wax ne dund bu gudd moo gën ci ki baax moo gën ci ki nekk ci safaan mu ne ki baax ay mbaax baaxam dana yokk ki nekk ci safaan itam bis dana ñëw mu dëpp dellu ci yàlla kon nag yàlla na yàlla guddal suñ dund yi te dund guddal ko ci def lu baax waaw guddal ko ci def lu baax li nga xam ne moom la bàyyi nekkee woon ak maam yi yàlla nañu ci yàlla jox cër bu law ba yokkal ñu ci loo xam ne sax ñoom defuñ ko woon bàyyi ne na jamono ngi nii joo xam ne ku ci góor góorgóorlu tuuti rek yàlla may la loo xam ne sa bàyyi mënu koon a def waaye mu ne bu mu tax nga foog ne yaa ko gën ndax mu ne bàyyi mel ni ñoom jafe na sakka di leen gën lii bàyyi mu ngi ko wax ci daji bàyyi la ja asta doon digal baraam doomam ne ko na nga góorgóorlu boo góorloo mën ngaa def ci alquran loo xam ne sa bàyyi def ko woon waaye suba waaye itam bu mu tax nga foog ne yaa ko gën ndax ñoom mel ni ñoom jafe na sàkkat leen gën yal ñu yàlla dimbale ci seen barke ñoom yal ñu yàlla jox liñ bëgg yépp ci zahir ak ci batin képp ku fi am soxla booy dem yal na fekk yàlla faj na ko képp ku fi am looy tawat yal na ko yàlla saafara képp ku fi am bakkaar yal na ko yàlla far képp ku fi am jafe-jafe yal na yàlla yombalal la képp ku fi am bor yal na yàlla fay képp ku fi am ku dem yàlla na dellu si te dellu si jàmm yàlla na ñu yàlla boole wattu ci lislaam wattu ñu ci gëm yàlla madina gële muy madina baay baay wax na ne mbooti madina yonent bi moo fa diree waaye mboot mu wéy itam ñu ngi ñaan yàlla yàlla na diree ko ci kër yoro gii yàlla na diree ko ci waa kër yoro yépp mbooti alaaji moo Zeynabu yàlla na fi diree ko ay ñaanam ay bëgg-bëggam lépp yàlla na ko yàlla dëggal ci dëkk bi dëggal ko itam ci ñi dëkkee dëkk bi dëkkal ko itam ci njabooti boppam ak ay sëtti boppam yàlla mën na loolu yàlla